asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk julli ji te ji fi teew bokk taalib yi ci ndégalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmbi Serigne Touba tey di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak ba mboolem naa lu rëy yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom mooy ko kàttan ak wér ba lépp moom mottali ko ni ko bëggee ci barkeb Serigne Touba mu yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak ngërëm jëmee ko ci waa daaira Touba ca kanam ci jëwriñ bi sëriñ sëriñ Abibu Mbàkke Cheikh Mouhamadou Fadil li ma ko seeraloon rek keroog bi ñuy tàmbali liggéeyam dëkk bi loolu rek mooy li ma ci seerwaat ndax loolu rek mooy li xam ci moom yitte ba taxawaay bëgg sëriñ Tuuba ak jël lépp jox ko sëriñ bi te boolewul ci dara kon nag liggéey bi nga xam ne moo nekk seen jëwriñ ci kanam ñu ngi koy ñaan ci barke sëriñ bi ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seereel suñu borom gën koo dolli kàttan tëbb ko wër ba liggéey ba mu àgg fa mboolem mboolem ñu ko seq ñëpp bu ñu tuddee sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Habib ñépp xam nañ li mu doon ci ñun ndax dama ko daa tooñ naa ko yaay waalidul xadra bu yàgg yàgg na la ëpp lu ñaar fukki at ndax moom ñi moom ëpp na ci suñu tur la ci des bëriwut kon loolu mu wax rek ñooy itam mën nañ koo seere waaye moom itam li ma mas a xam ci moom mooy bokk na ci sëriñ bi te mas def lu naqari yàlla te loolu yombut te ku bëgg Sëriñ Tuubaa la itam. ba nga xam ne bu nekkee mosuma xam lu sopp ci moom. daanaka dafa doon ci wàjju. kon moom itam seen taxawaay bii ni mu ànd ak seen seen yàgg borom boole leen ba sax duggante ci biir. loolu tànn Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax. sumb yu rëy yi ngeen sumb ci liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi mm-hmm. te sëñ bi dëkk bi rek ko itteeloon mm-hmm. yal na leen ci gën a gindi defal leen ci tawfeex ba fa ngeen ko bëgg a yóbbu nga ko Cheikh Maodo mu tax daal seere na mm-hmm. yaakaar ji am ci liggéey bi yàlla fa àgg mboolem ñu ci dugal seen alal ak ñi ko ànd ak yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal de sëñ tubaa daali woon ci waqti xawaa ijal si na daamu fii xidmati wa hab lahum maram yàlla ngeen tàbbi ci biir bi may ñëw nag Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi ma jox ndigal mu ànd ak Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne mooy maire dëkk bi loolu nag Serigne bi bu ngeen gisee mu def ko ab junju la ci jublu mooy xam ne liggéey bi lenn li maire bi yor ak li daayira Touba ci kanam yor lépp alal la moo tax mu bëgg liggéey lépp gën a nosu gën a nekk wenn say ngir fañ jëm ak fa àggal dëkk bu kon ñu ngi nuyu bokk taalibe yi fi teew yëpp. di leen ñaanalaat ci yitte jure ji ngeen xam ne da ngeen di dàkk rek lu ngeen yaakaar bëgg Sëriñ Tuubaa ngeen njëkkante kon la sëriñ bi daa wax saabixu ilaa maxfiratin min rabbikum ak saari'u loolu Sëriñ Tuubaa néew na fu mu tàggoo nit ñi te kon na ngeen xam ne wa fi zalika falyatanaafasil mutanaafisuun yéen nag ci loolu ngeen nekk te mooy lépp lu ngeen gis muy lu baax rek ngeen fexe ba kenn biñ leen cee jël kon nag yoon wi ngeen dëgmal te jëm ci sëriñ bi yàlla ngeen ci àgg te gëm naa de dangeen ci àgg ndax la li ñuy wax la fudda fuuka am na loo xam ne boo ko waxee da ngay catu nit waaye yoon wi ngeen teg gëm nañu Sëriñ Tuubaa mooy teg loxo ci yéen. ndax kat laa taqnatu min rahmatillah mm-hmm. waaye nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne la taamunu makaida sheytaani qabla firaaxi ruuxi wal abdan mm-hmm. bu leen naagu mukk ci pexe seytaan mm-hmm. waaye nag inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan moo dalal suñu xel ci yéen moo tax ñu gëm ne sëriñ bi dana koo mën bu kon ñu ngi rafet lu jotaay bi rawat na fii ngeen ko jëme muy ci alxuraan te Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne pàggutee fa mooy alxuraan ndax nee na ba ma xamee ne moo bàyyi ko ci yàlla jëmaat ci moom te jaarul fenn moo tax ma def ko muy sama pàggutee kon képp kuy dàkk Serigne Touba te dàkkee ko ci alxuraan na la wóoree dàkk nga ko màggal Touba gii ñuy wax kat ba mu ko njëkkee woote wala ci taarix ni ñu ko xamee gàtt ba mu ci njëkk rey ba mu noppee dañ ne nañ ko séddale sa kër ñu jaawale ko jox ko bokk yi ko yi gënoon a jege ba ko sëriñ bi déggee daa wax ne waa daayira kaamil ñoo ma tax wax fu ngeen déggee ma ne sama sama ñoom sama waa kër ñoo ma tax wax waa daayira kaamil yi ngeen dégg hmm. kon sëriñ Touba diggam ak alxuraan wax naa ko fii démb ci ndajam daayiratu rawdu rayaxiin hmm. li sëriñ Touba wax ne mallakanil xuraanu tam lii kan ya doom li ko firndeel bari hmm. dëkk bii li fay mokkal ci alxuraan amul fenn ci àdduna fenn fenn foo ko misaal mu gàtt la ci ne suñu borom may na ko kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi leen yàlla defalee tawfeex ngeen jug di dàkk sëriñ bi di soññ ñi nga xam ne ñooy yëngu di ci wàllu xaalis ñu gën ñu gën a góorgóorlu ndax ñi ne ci àdduna kat ñu ngi koy def kon yéen kenn wut leen caa jiitu ngir xam ne yaa banii aadama xusoo ziinatakum inda kulli masjid kon ki nekk ci lu baax di jàngale alxuraan war naa fexe ba waris naa fexe ba góorgóorlu ba ñoom ku leen gis leen ñi waaye ni àdduna doxe kat ku leen gis yërëm leen loolu kat nit ñi war ñoo ci war a xoolaat seen bopp bi ngeen def tàmbali ko nag ak yoon lu jëm ci loolu kon nag yàlla yàggal ak suñu Tuubaa gën leen ci dimbali di santaat yàlla bu baax nag di yéemaat seen Tuubaa ndax fi ñu toog di waxtaan tey barabu histoire la ndax ñu ngi ci daarul mën naan daarul mën naan bi Sëriñ tubaab bàyyi ko ci géej gi war a dem Murtani ngir mottali ji ak liggéeyam ba mu wàccee Daaru Salaam fii la ñëw sancale woon ko ak Cheikh Ibrahima Fall jëwriñam xam ngeen la ci xewoon ci histoire bañ kalaame sëriñ bi ak tubaab bi wax ne day dajale ay jihaad te fekk lal yi nga xam ne Cheikh Ibra moo ko jëndaloon Sëriñ Tuubaa andi ko ñu ñu wax tubaab yi déedéet ay ay ay ay ci nekk ba ñëw di wisit si kër gi Daaru Manaan gi doon kon nag bu yàlla defaatee tawféex bañ jublu màggal Tuubaa muy bis ba nga xam ne cër ba Sëriñ Tuubaa njëkkoon a bàyyi ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk julli ji tel bokk taalib yi su njëgalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmbi Serigne Touba tey di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem naa lu rëy yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom mooy ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Serigne Touba mu yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu yi cant ak ngërëm jëmee ko ci waa daaira Touba ca kanam ci jëwriñ gi Serigne Serigne Abibou Mbacke Cheikh Mouhamadou Fadil li ma ko seere loon rek keroog bi ñuy tàmbali liggéey dëkk bi loolu rek mooy li ma ci seerewaat ndax loolu rek mooy li xam ci moom yitte pëstéef taxawaay bëgg sëñ Tuba ak jël lépp jox ko sëñ bi te boolewul ci dara kon nag liggéey nga xam ne moo nekk seen jëwriñ ci kanam ñu ngi koy ñaan ci barke sëriñ bi ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seeree suñu borom gën koo dolli kàttan tëbb ko wër ba fa bëgg yóbbu liggéey ba mu àgg fa mboole mboolem ñu ko seqal ñëpp buñ tuddee sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Habib ñëpp xam nañ li mu doon ci ñun ndax dama ko daa tooñ naa ko yaay waalidul xadra bu yàgg yàgg na la ëpp ñaar fukki at ndax moom ñi suñ digg moom ëpp na fanweeri at fanweeri at nag koo génn ci suñu dund la ci kon loolu mu wax rek ñu itam mën nañ koo seere waaye moom itam li ma mas a xam ci moom mooy bokk na ci sëriñ bi te mas def lu te loolu yombut bëgg sëriñ Tuubaa xam lu sopp ci moom loolu dafa ci wàjju kon moom itam seen taxawaay bii ni mu ànd ak Cheikh moo sëriñ sëriñ Abibu te suñ borom boole leen ba seen tur wi sax duggante ci biir mm-hmm. loo tànn Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax mm-hmm. eh, somb yu rëy yi ngeen somb ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi mm-hmm. te sëñ bi dëkk bi rek ko ko ittee loolu yàlla leen ci gën a gindi defal leen ci tawfeex ba fa ngeen ko bëgg a yóbbu nga ko Cheikh Maodo mu taxa daal seere ne yaakaar ji am ci liggéey bi yàlla na fa àgg mboolem ñu ci dugal seen alal ak ñi ko ànd ak yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal de Sëriñ Tuubaa daali woon ci waq di xawaa jënd si na daa mooy fii xidmati wa hablahum marom yàlla ngeen tàbb ci loolu bi may ñëw nag Cheikh Mamadou Muntaxa mi ngi ma ko jox ndigal mu ànd ak Sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy maire dëkk bi loolu nag sëriñ bu ngeen gisee mu def ko ab junju de ci jublu mooy xam ne liggéey bi lenn li maire bi yor ak li daayira Touba ci kanam yor lépp alal moo tax mu bëgg liggéey lépp gën a nosu gën a nekk wenn say ngir fañ jëm ak bëgg fa àggal dëkk bu kon ñu ngi nuyu bokk taalibe yi fi teew yëpp di leen ñaanalaat ci yitte jure ji ngeen xam ne da di dàkk rek lu ngeen yaakaar bëgg Sëriñ Touba ngeen njëkkante kon la sëriñ bi daa saabixu ila maxfirati min rabbikum ak saari'u loolu Sëriñ Tuubaa néew na fu mu tàggoon nit ñi te kon na ngeen xam ne wa fi zalika falyatanaafasil mutanaafisuun nag ci loolu te mooy lépp lu ngeen gis lu baax rek ngeen fex ba kon nag yoon yi ngeen dëgmal te jëm ci sëriñ bi yàlla ngeen ci àgg te gëm naa de dangeen ci àgg ndax la li ñuy wax la fudda fuuka am na loo xam ne boo ko waxee da ngay catu nit waaye yoon ngeen teg gëm nañu Sëriñ Tuubaa mooy teg loxo ci yéen ndax kat laa taqnatu min rahmatillah waaye nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne la ta'munu makaa'ida shaytaani qabla firaaqi ruuhi wal abdan bu leen naagu mukk ci pexe seytaan waaye nag inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan moo dalal suñu xel ci yéen moo tax ñu gëm ne sëriñ bi dana ko mën bu àgg kon ñu ngi rafetlu jotaay bi rawat na fii ngeen ko jëme muy ci alxuraan te sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne pàggutee fa mooy alxuraan ndax nee na ba ma xamee ne moo bàyyi ko ci yàlla jëmaat ci moom te jaarul fenn moo tax ma def ko muy sama pàggutee kon képp kuy dàkk sëriñ tubaa te dàkkee ko ci alxuraan na la wóoree dàkk ga màggal Touba gii ñuy wax kat ba mu ko njëkkee woote wala ci taarix ni ñu ko xamee gàtt ba mu ci njëkk rey ba mu noppee dane nañ ko séddale saw waa kër ñu jaawal ko jox ko bokk yi ko gënoon a jege ba sëriñ bi déggee daa wax ne waa daarikaay yi ñoo ma tax wax fu ngeen déggee ma ne sama sama ñoom sama waa kër yi ñoo ma tax wax waa daarikaay yi ngeen dégg kon sëriñ Touba diggam ak alxuraan wax naa ko fii démb ci ndajam daayiratu Rawdu Rayaahiin li Sëriñ Tuubaa wax ne man la keneel xuraanu tam lii kan ni doom li ko firndeel bari hmm. dëkk bii dafay mokkal ci alxuraan amul fenn ci àdduna fenn fenn foo ko mën a kon loolu misaal mu gàtt la ci ne suñu borom may na ko hmm. kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi leen yàlla defalee tawfeex ngeen jug di dàkk sëriñ bi di soññ ñi ngi xam ne ñooy yëngu di ci wàllu alxuraan ñu gën ñu gën a góorgóorlu ndax ñi ne ci àdduna kat ñu ngi koy def kon yéen kenn wut leen caa jiitu hmm. ngir xam ne yaa banii aadama xusoo ziinatakum inda kulli masjid kon ki nekk ci lu baax di jàngale alxuraan war naa fexe ba waris naa fexe ba góorgóorlu ba ñoom ku leen gis leen ñeent waaye ni àdduna doxe kat ku leen gis yërëm leen loolu kat nit ñi war ñoo ci war a xoolaat seen jéego bi ngeen def tàmbali ko nag aw yoon la jëm ci loolu kon nag yàlla yàgg ak suñu Tuubaa gën leen ci dimbali di santaat yàlla bu baax nag di yéemaat seen Tuubaa ndax fi ñu toog di waxtaan tey barabu ndax ñu ngi ci Daarul Manaan Daarul Manaan bi Sëriñ Tuubaa bàyyi ko ci géej gi war a dem Murtani ngir mottali ji ak liggéeyam ba mu wàccee Daaru Salaam fii la ñëw sañcale woon ko ak Cheikh Ibrahima Faty xam ngeen la ci xewoon ci histoire bañ kalaame sëriñ bi ak tubaab bi wax ne day dajale ay jihaad te fekk lal yi nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko jëndaloon Serigne Touba andi ko ñu ñu ñu ñu wax tubaab yi jël ay ay ay ay ci nekk ba ñëw di wisit si kër gi Daaru Manaan jëndoo kon nag bu yàlla defaatee tawféex bañ jublu màggal Touba. Hmm. muy bis ba nga xam ne cër ba Serigne Touba njëkkoon bàyyi ko. Hmm. ñu ñëwaat. fekk fi saal bu toll nii ca benn taalibu Serigne Touba di Serigne Cheikh Issa Dieng di Serigne Sidy Dieng tabax ko moo ko mbooloom wala sañ see yéemaan mbirum Serigne Touba yi ca kanam léegi kon nañ suñu xeddal te dolli suñu ngir xam ne yoonu Serigne Touba ci war mooy dëggan ak pëstéef ak bañ a rax sëñ ak bañ koo jaawale waaye la ci lépp ci loxo Serigne Touba ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kat waxoon na ne liggéey Sëriñ Tuubaa yomb na ndax day féetewoo coono bàyyi la sëñ kon war nañu góorgóorlu bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa kat li mat a fàggu lépp fàggu te waxoon na Sëriñ Amsatu Jaxate ne Amsatu sama dëkk bii sama xasida yi sama yoon bii sama dëkk bi doon lu ci kenn dara kon ñun ñëpp nañ xam ne dañoo nekk ci biir ñaan gu nangu dañoo nekk ci biir aaj du faju kon nañ sant yàlla bu baax te da gën a delloo suy lépp Sëriñ Tuubaa te dox jëm ci moom bu ñu ko defee danañu gàtt ci àdduna te fañ bëgg ëllëg danañu fi yóbbu wassalaamu aleykum wa